xamante di ngeen ci am mbégte euh, ñu wax ci beneen fait de l' actualité de la semaine li ñu seetlu jamono ji ci dëkk bi doy na waar trop trop trop trop trop trop trop te ñu wax ko nag te dund duñ ko wax te dee embouteillage boo xamante ni kenn xamul qui ne dit pas de son nom embouteillage bu yéeme bu doy waar dëkk bi kenn mënul dem kenn mënul dikk deux heures de temps quatre heures de temps ngay def diggante par exemple nga jóge Liberté jëm jëm Escale jëm euh, Sodida tu peux faire trois heures de temps wala deux heures de temps nga jugee Rufisque moom ñëw Dakar waxuma ko tu peux faire cinq heures de temps muy APH muy suuf APH moom waxatuma ay wax bu ñu nee ba ci APH moom daanaka nga fay ba pare gën a yeex kenn xamatu lu muy jëriñ donc pour man da nga imaginer yow quatre heures de temps cinq heures de temps nga mën fay dem Paris mën fay dem Londres àgg woote wax dox say soxla. ba pare te ki jóge woon euh, Rufisque wala buntu Pikine mënagul àgg biir Dakar loolu nag dafa am jàngal bu ñu ci mooy lépp mi ngi jëm ci benn direction boo xool Dakar xool Sénégal ñëpp xëyee benn bunt lañu jëm mooy biir Dakar centre ville te foo mën jaar da ngeen di daje ke jóge Wakaam ak jógee Pikine ak fu mu mën di jóge pour man dafa nekk lu ñuy signaler ne donte yi tamit oto yi bëri na mais population bi yokk na mais aussi politique publique yi dese nañ ko tasaare tant que décentralisé wuñ yóbbu yenn entreprise yi génne leen biir Dakar dem investir industrialiser dëkk bi yenn région yi tant que defuñ ko fii ba cent ans bu ñu fi indi woon BRT oberteeg reverteeg lu mu ci mën di doon teer ak reer nit ñi dañuy gën a teer rek waaye mënuñu fexe ba embouteillage du fi jóge mënuñu fexe ba li nga xamante moom moo di xataay di fi am Dakar moo war a location bi ñëpp di jooy parce que ñëpp duñu daw wut ci Dakar plus de 4 millions presque 3 lañ doon wax daanaka 4 millions d' yoo xam ne ñu ngi yewoo fii ci dakaar ci benn île bu ndaw benn partie presque du Cap Vert boo xamante ni presque du Cap Vert bu ndaw benn ndaw lu ndaw nii ñun ñëpp tàncaloo fi amuñ air pur pollution baa ñu rey cherté de la vie ñu rey lépp ku ñu ko teg état moo jël lépp banqaase ko fii. gis nga bu ñu fexoon ba dindi ko fii ministère yi génne nañ ci àll bi Kédougou yóbbu fa lépp luy mine ak ministère ba mu banqaasool ñu toog fa jël wàllum agriculture defu biir dara Dakar yóbbu ko biir bassin arachidier Sine Saloum. ak mboolem direction yi mu bànqaasool décentraliser ko ci département yi ak foofu ak région ba ak yëpp mboolem service yi bi ci commune parce que ñu ngi doon wax décentralisation communalisation pour man dañu war a fexe ba service yi sax dem dans les commune yu bëri mais ça n'existe que de nom ci wàllum activité administrative bi te dafa war a nekk loo xam ne dañ ci war a gis seen bopp nga jël pêche nga séddale ko diggante Mbour ak Saint-Louis napp jën foofu gis nañ foofu nga def fii benn euh, département benn département euh, benn agence def euh, Mbour def Saint-Louis ministre de élevage lu muy wut biir Dakar nga yóbbu ko fële ndax boo wóoree maanaam Dakar am na ñu dem jëm ñaaju mais jëm ñaaju mooy Dakar rek amul benn importance nga yóbbu ko Fouta Matam nga décentraliser yenn industrie yi nag nga commencé créer identifier les potentialités nga ne Bawol. buy am na fa bisaab dafay bëri naka lañ fa industrialiser ba tey ñuy am ay jus transformation céréale et cetera bu ko defee ka doon wuti liggéey ka doon bàyyi këram di jànq si fii toog fa ka doon wuti chauffeur toog fa et cetera ñu mën a defar seen dëkk ku ne tabax fa nga dëkk doo fay location dootuñ ko fi waxati. nga def ko feneen nga ne ah Saalum kat kii bi dar kase bi gis nañ fa ni mu fa bëree goyaaf bi naka la ñuy wuti ay industrie fii trans dëkk boo xam ne yow da ngay xëy lekk bu ngoon ba suba ba ngoon. ba ci li ngay sol sax ndax yére yi coton yi ci bëri coton la ci suuf si lay jógee yàlla may la suuf su bëri espace mënu ko exploiter ndax la manque d'une volonté politique réelle et engagée topp mbumbaay làmb ndayale làmb xawma ay meeting ñàkk gaspiller xaalis yàq xaalis jënd ay oto yu rafet tabax biir Dakar ay tour du loolu moo tax ñuy natt niveau de vie euh, benn niveau de vie wala développement économique wala li nga xam ne moom moo di suqaliku pour man war nañu c'est un signal fool pour repenser notre système de euh, transport pour man war nga mën a quitter Diamnia euh, quitter fële Diourbel ñëw liggéey si dakaar demaat léegi te doo am ay seconde ak feneen beneen bi may jeexale mooy tamit dawal bi ñu bëri wax dëgg yàlla war nañ leen yóbbuwaat dajale chauffeur yëpp dem ba dafa defaat leen test parce que dawal bi salte na